bismillahi irrahmaani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen rajo ci seen jotaay bi mu tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu su na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bañ seen taal subhaanahu wa taala julli ci annabil Mustafa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko tey mu war a nekk suñu fukkeelu jataay ak juróom benn fukkeelu jataay beeg juróom ngi nekkoon ci buntu fukk ak juróom ñeent nekk ci bunt bi tudd man sànn sunnatan xasana aw sayyi'a yàlla nu yàlla xiir ci lu ñu def muy sunna xasana waaye yàlla buñ def mukk sunna sayyi'a xeetu sallallahu alayhi wa it yàlla yàlla baaxe leen ba ñuy def sunna xasana waaye yàlla na leen baaxe ba duñ def sunna sayyi'a waaw tabarakallahu ñu ñëw kon ci sunu bindu tey moo di buntub ñaar fukk buntub ñaar fukk day jàngale moom it lu am solo lu niroog li mu doon jàngale démb te mooy addilaala ala xayrin wa duaa ila hudan aw dalaala <laughs> waaw bunt boobu loolu lay jàngale loolu mooy lan mooy ku tegtale lu baax walla nga woote jëm ci njub walla nga woote jëm ci ndëng waaw loolu la bunt bi indi tey ku woote jëm ci njub waaw ak ku woote jëme ci ndëng ak ko tegtale aw yiw xeetu sallallahu alayhi wa bi bi mu fi jógee bàyyi fi assahabatul kiram attaabiuuna asalafu saalix ila yumina hada dafa am lum leen bàyyee mooy ñoom ñépp dañu bëgg ñu bokk benn liggéey ñoom ñépp ñu nekk ci tool bu tudd toolu sunna walla boog toolu alxuraan ak toolu sunna muy gerteeg dugub bu dee ca baykat ya boo ne toolu gerte ne toolu dugub boo tuddee benn bi toolu gerte muy alxuraan nga tuddee benn bi toolu dugub muy sunna am na ku nekk ca cil maxa mbaa kol wala ca calle mbaa duy sangu mbaa déndéy moom dana xam ne kon yonent bi ñaari tool yooyu la am bi mu fi jógee it loolu la fi bàyyi woon taraktu fiikum ma in tamassaktum baatu bihima dafa da firi ñaari tool alayhi salaatu bëgg nit ñi di woote jëme ca tool ba di woote jëme ca tool ba di woote jëme ca tool ya wadu ilaa rabbika boo demee ca alxasas ma nga ca wooteel jëme ci sa boroom wooteel jëme ci sa boroom bu ko defee woote bi dana ko wax nan lañuy wootee jëme ci sa boroom ndax woote añ yombut ci ku ñarut ndax booy woote añ ñëw fekk ndaw ku ndaayu toog ñoom imaam lay ndaw nga ne kaay leen lekk du ay teggin boo leen doon woo ndogu waaw ne leen kaay leen ndogooti du ñëw kaay leen lekkati du ñëw lekk gi ñëw na du ñëw lekk gi de ñëwati na waxuma laa nag boo feesu ci yeneen baat woote jëme ci yàlla ci li jafe ci pénc mi la bokk ndax façon wootin wi léeg-léeg mooy tax nit ki ñëwam du yomb woote bi it ki ngay woo mooy ki ñëwagut maanaam di woote añ fekk ñu sukk añ nga di leen woo añ wax ju yàqu la di woote ndemum tool nit ña ne ca tool ba nga di leen woo wax ju yàqu la waaw loolu mooy woote bi dangay fekk koo xam ne ki moom mi ngi ci tool bi loo koy wooxe walla mi ngi ci bool bi sukk loo koy wooye kon ki ñuy woo mooy ki gut bu dee sunu réew mii léeg-léeg ñu am jafeñ-jafeñ ci wàllu googu ñu ñëw ba noppi lañuy ñuy woo déedéet am na ñoo xam ne ñëw nañ ba noppi ñu ngi ci bool bi sukk waaw bool bi ñu sukk nag bokkut ak bi nga sukk boo leen bëggee jële ca bool ba ñu sukk indi la ci bi nga sukk yow ñoom bu ñu jógee ca bool bi ñëw ci bool bi du tee ci añ bi rek lañ nekk waaw la loolu lu am solo la ci xàmmee ko euh, bàyyi cheikh mu nga fële ca ca ca ca njaasaan yàlla na ko yàlla sàmm da ci ma sa wax maqaal bu am solo ci wàllu googu waaye lii rek lay tekki mooy fekk nga ñépp sukk ci bool bi ngay woo kenn ca bool bee pour mu ñëw ci bool bii déedéet dañoo bëgg nga dem woo yi ku sukkagut waaw mooy diine ji ñi ci bokk ñi ci bokk ñoom ñi ngi ci bool bi sukk ñi ci bokkut waxaguñu laa ilaha illallah tegaguñ ca muhammadun rasulullah iqaamu salaa itaw zakat sawm ramadan ñooñu la ñi nga xam ne bokkaguñu ñooñu la lañuy wuy woohi pour indi leen ñoom ñu bokk ñu bokk ba noppi nag dañoo am benn message boo xam ne walla benn langage boo xam ne ñoom ñoo ko moom waaw léeg-léeg alxuraan junj ko bashir ndax ñoom ñoo ko moom muy baatu bashiru wala tunaffiru bashiru bégal leen ñu sukk ci bool bi ba noppi wala tunaffiru bu leen leen dàq bu leen leen siis ndax siis ki sukk ci bool bi ba mu téye ba mu téye loxoom mbaa mu jóg jar nay moytu te su boobaa dàqal nga yonent bi ay piccam yëkkatil nga ko ñu sukk ci bool bi moo tax wadu ila rabbika waaw ba dama ca xasas wax jooju ma nga fa waaye borom bi mu xam ni ñëpp mënuñoo woote kaay leen ñu añ damay misaal nag ñëpp mënuñoo woote ila rabbi déedéet ndax lan bu jëntukaay yim laaj amut koo woo du ñëw nga sonn sonal say bokk mujj di xoloog nit ñi fekk du ci ñoom ci yow la sa jumtukaay yi moo matul waaw yàlla na sunu jumtukaay mat ñun ñëpp ñun ñi jéem a woote daf ne udu udu wooteel udu wooteel Cheikh Ahmad Tidiane gay almarhum nekkoon ci Louga nekkoon mu fattish arabi bu daan firi udu daf daan laaj nuñ koy bind ci verbe passé ak verbe présent bu ci nekk bu amut ak liif rek amug waaw mu ne fii ñu dund liif ga dindi waaw ga waaw waxin la ci euh, waxi ku bëgg ñu dégg ko ci waxam mu ne daa mooy am ak yadu fii nag mu ne dindi waaw ga dindi liif ga mu ne loolu li nga ci jànge mooy waaw ga ak liif ga diisaloon na ci waxin nag nag ci waxin mu ne dindi waaw ga ak liif ga woyefal na ndax yàlla bëgg wax ni ñuy wootee mu commencé ko laltaayal ci même ci baat yi udu wooteel waaw wooteel foo woote jëme ila sabili rabbika ci sa yoonu boroom demal nga woo gaañi ñu ñëw añ demal nga woo gaañi ñu ñëw añ hmm? waaw lu ñu xiif xiif xiif nag daa am noonu boo ko wooxee du ñu am appétit ñu suur moo tax udu wooteel foo woote jëme ila sabili rabbika gis nga sabili rabbika jullit yépp a ko bokk ila sabili rabbika sabilu rabbi jullit yépp a ko bokk li jullit yu bokkut mooy sabili association bokkuñu ko sabilu tariqa bokkuñu ko sabilu jamaa bokkuñu ko waaye sabili rabbika nag ñoom ñépp a ko bokk mooy kon mën ngaa woo nit ba mu ñëw woo nit ba mu ñëw mu sukk ci ndab lu bokkut li nga sukk di añ fee ngay añ fii moo tax bu fekkee udu ila sabili rabbika am na yow li lay yitteel mooy na nit ki añ si lan ndab lay sukk bu mu la yitteel boo jàppee ni li fekk sukkul ci sa ndab nag bokkut wala añut foofu nag la ñol ñol di nekk ak coow li waaw mu taxoon Moussa ne woon borom dënn bu yaatu la bëgg ndax su ñu wootee ci ndab li fu ay sukk ma nangu ni sukk na waaw ndab yaa ngi ci réew mi ndab yaa ngi ci àdduna si ndab yépp sabili rabbika waaw nan ko nangu rek nangul ñépp ne ñu ngi sukk ci ndab yi waaye am na ko sukk ci ndab loo xam ne bokkul ak ndab li nga sukk muy dank ngay dank muy sax ngay sax <laughs> waaw kenn mësu koo gis rek ud'u ila sabili rabbika demal woo leen ñu ñëw añ wala demal nga woo leen ñu ñëw ndogu noo koy defee mu ne bil xikma bil xikma waaw na ko def ci pédagogie na nga jàng technique de communication waaye nanga nga jàng ñi ngay communiquer udu qul haazi sabili adu ilallahi ala basira ala basira ca suurtu yusuf alxikma mooy pédagogie alxikma mooy teey alxikma mooy technique de communication waaw jamonoy indépendance jamono ñoom inspecteur joxaane jamono ji fi tubaab bi nekk di jàngale communication bokkut ak jamonoy tey nga xam ne lu waay am ci communication rek dem ak moom bu penc mi ñoom it xamuñu xamul communication lu waay indi ñu jël woote jëme ni ci jëme ci yàlla dafa war a am technique de communication soo tolloog nit ñi fréquence jërul changer boo tëlloo teg ñoom fréquence benn nga féete leen kaw ci sa fréquence mbaa nga féete leen suuf ci seen fréquence nan ngay leen di féetee ko wàcc ba ci seen fréquence bil xikma la nan nga leen di féetee suuf yéeg ba ci seen fréquence bil xikma la ñiy déglu rajo Sud FM ci dakaar boo defee quatre vingt point cinq dangay am si defem bu leer incha allah waaye boo defee quatre dix huit point sept cinq bi nga yokk ci ñaar beneen rajo ngay dégg boo defoon quatre dix huit point six doo dégg rajo ba nga jëm doo dégg bi nga jóge benn du ci leer ci ñoom ñaar jóge nga ci Sud FM jëm ci quatre-vingt-dix-huit quatre dix huit point sept doo àgg ca ñee doo jóge nga ci ñi boo defoon quatre-vingt-dix-huit point deux beneen rajo ngay jàpp boo defoon quatre-vingt-dix-huit képp beneen rajo ngay jàpp quatre vingt huit point un beneen rajo ngay jàpp loolu mooy lan mooy nit ñi tolloowuñu ay fréquence fréquence yi gone yi nekk bokkut ak fréquence yi mag ñi nekk fréquence yi jigéen ñi nekk bokkut ak fréquence yi góor ñi nekk fréquence yi sëriñu daar yi nekk bokkut ak fréquence yi professeur yi nekk mukk waaw léegi kon léegi yow nooy def ba fréquence yooyu nga xàmmee leen ba ku nekk mën a am ci fréquence yooyu su fekkee appareil bi mu yor mën naa capter fréquence bi nga tollu loolu am solo la bil xikma sunu boroom wax foofu ne nañ ko wooteel ila sabilihi waaye nañ ko def bil xikma waaw bu ca xikma amul rek duñ la wuy si te buñ la wuy si wut nga mere leen te boo leen meree def leen yëfër te ab julit mënta nekk yëfër ab julit mën naa sàggan man naa moy waaw mën naa nang mën naa tooñ waaye nag du tax nga ne ko nag yéefar nga waaw te boo ne ko musirik nga bidii nga yéefar nga baat yooyu yam bul mer ba def leen ko bul mer ba def kenn bu yéefar mukk waaye bul ñàkk pédagogie ba tax nga def leen ko wax naa sànq fekk nit ñu toog nga yuuxu leen ci lekk kenn du am appétit wala ñëppay suur mbaa ñu gedd sax nag mbokk yi uddu ila sabili rabbika bil xikma pédagogie daa war a am ci nga xam fréquence su nit ñi ala basira li nga leen woo jëme lan la waaw ni nga leen di wooxee nan la ki ngay woo kan la ala basira basira fii man tad'u basira ilaa ma tad'u basira kayfa tad'u ñetti basir yooyu bu amul mu basair yooyu bu amul léeg-léeg télescopas yi mooy ëpp moos ñi lay wuy si mu ne xikma doy na mu ne doyut de wal mawisa alxasana booy woo nit ñi woote bi day am xikma waaraate wi day nekk xasana waaw daawa bi day nekk bil xikma waaraate bi nekk bil xasana wala waraate bi nekk xasana woote bi mooy kaay leen ñu añ waaw waaraate bi mooy bi ngeen sukkee di añ waxtaanu añ bi waaraate cim réew kenn mënu koo def ndaxte yaaraw ñépp mm-hmm. sunu réew mii nu jox la micro ngay waxtaan jàpp ne yaaraw ñépp keroog la la ñépp raw waaw est-ce que raw nga lu mat treize pour cent ci pénc mi yaakaaruma ko waaye li la li la raw yow kenn xamul nu mu toll bi ngay waaraate bu rafetut yaa nga yëkkati ay sidit yaa nga yëkkati ay dënn tabaarakallah mbokk yi <laughs> bind bi jeexut dañoo ak suñ ko war yëkkatee ci kanam tuuti ñu wéyal ko incha allah ci kàttanu borom bi tabaaraka wa muy seen jataay riyaadu saalihin tey nekkoon suñ euh, fukkeelu jataay ak